Gomis démb la woon fetam ca Anne Maris nuyu nañ ko baax di am mbégte contentement ci Serigne Cheikh Omar Tall nekk ca Sokone yal na ko yàlla bàyyi fekk jàmm di nuyu tamit le grand noble bi nga xam ne nag moom mooy euh, euh, suñu doomu ndey di tubaab di doomu ndey di càmmin ci ki nga xam ne moom mooy euh, Mimi Touré di xaritu ci Hadj Abou Bilal di xarit ci Malick Gakou l'homme de Sam Notaire chef de cabinet Aminata Kanté maire Sam Notaire moom tubaab yal na ko yàlla defal jàmm nuyu tamit sëñ Sang Ndiaye ak Jamila Diop madame Ndiaye yal na ko yàlla defal jàmm moom tamit ñu koy ziar ziar bi wër di am mbégte contentement ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show delluwaat di ziar Alaaji Cerno Sama Sa Mora bi ci gàmmu gi nga xam ne nag après gàmmu gi rek moom basam mooy teew ñu koy préparé incha allah fii ci télé Futur Média di bu baax ki nga xam ne nag moom mooy Mohamed Victor borom Pikine tali bu mag Lamine Diagne euh, Lamine Ndiaye euh, borom Lougaloo ñu koy nuyu Serigne Modou Seck borom Canaba de la part Go Fall waaye tamit di wax ménage à ki nga xam ne nag moom mooy Euh, euh, Fama Diédhiou e son mari Fallou Tine sans oublier sa mère Yacine Bodian son père Vieux Diédhiou ñu ca HLM Grand de la part de toute l'équipe de Kouthia Show ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag ci Ñanga Mbay doomu El Hadj Mansour la suñu xarit la yal na ko yàlla defal jàmm ak Aram Diène Wagne nekk ca Baobab maman Ouli euh, Yahya Diop la grande dame de Sicap Baobab ñu koy nuyu bu baax di am mbégte contentement ci madame Sène ne yaay Betty Diagne ca Italie dëkk bu ñu naan Como Canzo moom ñu ngi koy nuyu de la part de toute la famille Diagne na nag ñoom Khady Diagne a ñëpp ñu ngi koy nuyu moom madame seen ne yaay Betty Diagne nuyu nañ tamit Ndiaga Ndour Park euh, télévision mais taximan Aïda Kane et sa sœur Nene Mariem kan Ah, nee na Mariam Thiam Kane clin d'œil et toute la famille Kane sans oublier les frères et sœurs de Aïda Kane nekk ci journal Observateur monsieur Guèye di petit Guèye nag euh, seen jën taalibe sëñ Mansour yal na ko yàlla defal jàmm moom nag moo sauvé Mati sinon Mati dinaa def loo xam ne nag lu ñaaw la ndax nee na ma éragé bu daal bàyyi lépp sama loxo danaa ko réglé te monsieur Guèye moom waxam jalu muus la soo waxee fekk fa dara ndax moom du wax ci neen yal na ko yàlla may jàmm mu monsieur Guèye monsieur borom seen jën dëkk ca Mbour di nit ku yàlla baaxal Aïssatou Mbaye euh, dëkk ci dëkk bu naan Gassama Kounda ak waa Fajikunda yëpp ca Gambie nuyu leen di am mbégte contentement ci Awaka Coulibaly Seri Muntaga nekk ci régie bi yal ko yàlla defal jàmm léegi nag dañuy seeti Macky Sall moom nee na euh, président bi nga xam ne moo yor assemblée nationale di Moustapha Niass vraiment. xooleetu ko sax bëtu président assemblée mais bëtu papa la ko xoolee ndax exemplaire la dafa gërëm Moustapha Niass ba Moustapha Niass tamit bi mu koy delloo njukkal démb tamit moom tamit gërëm na ko ba ay rongo ñoom tuuru gërëmante la woon ak sargalante seen biir nee na référence bi nga xam ne moom lay xool ci Moustapha Niass mooy nit ku dëggu la nit koo xam ne kàddoom la am kon démb moom mu ngi doon wax ay ministre am nañu jaar ci Nafi Ngom Keïta bi fi njëkk jaar pour ñu saytu seen alal ñu seeti président Macky Sall ca assemblée démb ca méridien xumboon na dagoonoon na neexoon na amoon na ambiance président Macky Sall qui sort toujours pour dire la vérité aux Sénégalais et à ses ministres kenn musul gis lii Macky Sall nee na ministres léegi chaque 15 jours nañu dem ci assemblée nationale premier ministre bi chaque 15 jours dana dem ci assemblée wax ak askan bi ñu bàyyi rajo yeeg télé bi santu leen loolu li mu leen sant mooy dem ci assemblée wax ak peuple bi ndax les élus du peuple ñooy déglu peuple pour nettali ñu seeti Macky Sall ca méridien président Demba xumboon na ca Dagane

di nuyu di leen gërëm di sant di gërëm askanu Sénégal tey su ma toogee jàkkaarloog président assemblée nationale di Moustapha ñas duma ma def lu di ko gërëm ndax mën na ma papa waaye uuf na ma wan ma yoon bi wan ma ni nga xam ne mooy politique niñ koy defee ak niñ koy samee boo nekkee ci sa réew li ma bëgg xamal samay ministre ak ñi nga xam ne ñooy directeur yi ma fal mooy bëgg naa ñu saytu leen ci seen alal ku nekk li nga yor nga wax ñaata la su ko defee ñu saytu ko xam li nga yor bi nga amee ndax yokk na war a wàññeekul ndax da ngay jël ministre fal ko ñaari fan mu eggali terrassam war nga fal ministre ñetti fan mu jënd terrain jënd ay fas jënd ay bay di naqasaale bañ ku nand fi nga xam ne mooy investissement am te xam nañu lépp bëggatuma toog ñuy ñu ne ministre ba lee na kees wala ministre ba def na la ko sulul noonu moo tax ma jël jigéen jàmbaar na fi ngom kayta ne ko saytul ndax jigéen bu demee bay saytu góor góor war naa am kersa di làq loo xam ne alalam loo xam ne daf ko luxat war a mu liggante ko ci naka sulul noonu te réew mi dafa laaj suqaliku suñu toogee jàkkaloo suñu papa Moustapha Niass di nit ku dëggu ndax ànd ak naa moom ci fula ak ci fayda waaye bés bi mu waxee ne moom jël na partem seeyal ko maanaam seeyalu ko saba ba mu seey waaye li nga xam ne mooy échéance 2017 yii tegee na ko ne day ànd ak man ba fi mu yem neex ma bëgg nag réew mi ñu arrêté la récréation campagne électorale 21 jour la bu weesoo 21 jour dañ ko war a teg na leen liggéey ndax réew mi dafa toll fu ñu liggéeyee te bàyyi caaxaan ndax caaxaan bi jeex na dootuma nanguti nag ay magatu politique ay politiciens taxaw jël réew mi en otage ci ay wax ak ay tuumalaate su ko defee ñu perte suñu temps di leen tontu te at dafa gaaw ndax bés du xaar kenn te wër bi du xaar kenn at bi dafa gaaw ñun suñu référence dañ koy jël ci ku mel ne Moustapha Niass di président assemblée nationale xataluñu di ko denk nag samay ministre ne ko bu mu ci am kersa ministre bii nga xam ne mooy premier ministre fukki fan ak juróomi nag dina jaar taxaw sa kanam leeral ni mu askan bi taxawee ci kanamu ministère bu nekk di taxaw wax askan bi nan nga yoree ministère bi nañu bàyyi caaxaan yi récréation bi jeex na te ñu liggéey te xam ne Sénégal liggéey nañu santaane un peuple qui émerge Sénégal jëm kanam te ñu bàyyi caaxaan yi suma papa Moustapha Niass gërëm naa la sant naa la ndax yaa ngi doxal doxalu kilifa yaa ngi wax waxu kilifa foo waree wax foo warul wax doo wax te mag bu waree wax wax wax ji day jeex benn yoon waaye topp ci di bay bayal ñun duñu topp mag yooyu nga xam ne dañuy bay bayal kon li ma bëgg ñu xam ko mooy qu'on arrête le paroles de politiciens et politiciennes et kon travaille pour soulever le Sénégal émerger le Sénégal loolu mooy sama taxawaay te loolu laa gëm liggéey lañu wax moom la réew mi di liggéey liggéey lañu soo décembre bi bii bëggatuma dégg benn artiste di def ay soirée di ma ko tuddee wala nga koy tuddee sama soxna na jeex ku ci amati soirée booy def na nga xool ñeneen ñoo koy tuddee waaye man jeex na bëggatuma dégg sama tur ci ay soirée grand théâtre wala ci affaire mbumbaay parce que du ma tere mbumbaay ba pare ñu may tuddee ay mbumbaay parce que ne tay à partir du 31 décembre muy suma soxna dina waxtaan ak moom ku bëgg ñu dimbali la da nga dem liggéey ndax du ci ay na nañuy ute alal ci kaw nit ñi yooyu yëpp dañ ko arrêté na ministère yi suqali seen ministère te bàyyi ay soirée na ñu bàyyi di tuddee ay soirée yoo xam ne dañ ci ut xaalis sëñ Sidi Maktar nee na nañu arrêté foom yi foom yi nag mu ngi ci domaine boo xam ne foo ko set yaa ngi foofu bu kenn ma dugal ci ay soirée bu kenn ma tuddee soirée nañu liggéey ñu tude ma ay tool moo ma gën a ñu tuddee ma ay soirée dinaa waxtaan ak madame Faye te su waxtaan ak moom dana ànd ci li ma ko wax qu'on arrête les soirées de parrainage ak liggéey suqali suñu réew wax moom la réew mi liggéey waaw waaw ni la ñu wax